mbokk yi ñu ngi leen di nuyu yaakaar naa ne ñaari xale yi taxaw nekk na ñaari xale yoo xamante bi ni miin ngeen leen torop ku ne mbay guy gi xam ne ma nga waree ca école de lutte ba da jonn nekk ndaanaan nekk xale boo xamante bi nii am na lu mu def ci biir làmb waaye nag bu ne Zarko ca Grand Yoff mbooloo yaakaar naa ne jàng ku mokkal ber sa daara waaye kenn du ñi nga xamante bi ni ñooy waa Rent DKR combat bi promoteur yi ko bëggoon bari na waaye yàlla dogal na nag comme ni may wax chaque jour rek kenn ku nekk ak sa wërsëg kenn ku nekk luy sa wërsëg rek moom ngay jël waaye bu ne mbay guy gi du ngeen fàtte digganteem ak John Kara waaye du ngeen fàtte digganteem ak xale bi nga xam mooy Iba mécanicien digganteem ak Alioune Seye Junior ñu wàcc rek gàttal ci digganteem ak Mame Balla top 5 di Sarko diggante ma Mame Balla top 5 fii la woon bi mu fiy mujj victoire la fi jële diggante ma Bathie Seras diggante ma Fifty seen waaye ay diggante ma caat bu booy bambara léegi nag yaakaar naa ne mbay moo ma gën a jege dama koy jox mu nuyoog mbokk yi ñu daal di jub ci ki nga xamante ne ni mooy Sarko mbay maa ngi lay siyaare waaw maa ngi lay fay Modou da maa ngi wax asalaamaaleykum maa ngi nuyu waa stade bi ñëpp ñi fi ne di wax ginnaaw ban sant yàlla julli si yonent bi ñuy gërëm suñu ñaari waajur di nuyu suñu waa dëkk waa reefan su suma nag fa ma dëkk muy reefan boox maa ngi nuyu ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di nuyu waa Medina di wax jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp maa ngi nuyu ñëpp di nuyu sama gaay ma àndal Mor Baye Fall lan 2000 sama doomu ndey ak village sama kotsu maa ngi nuyu ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di nuyu sama ba Bada Dione xam naa ne dañuy gàttal rek Zarko Baye Fall bi doomu Grand maa lay ziyaare. ñu ngi lay fay Baye Fall. lamba kon ayca noo ñëwee. waaw ni ñëwee gannaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi sant suñu ñaari waajur di sant l' ensemble zone 7 de Grand Yoff di euh, di kontaan aussi ci làmb ji ñu dellu si. parce que umpale wu leen ni dem nañ bitim réew toog fa di noppaluku loolu noonu yëpp nag euh, musul tax làmb génn suñu xel parce que ñun lépp lu ñu doon làmb moo ko def si ñun kon mënuñu am lu gën làmb. di wax nag bis bii nii moom ah sama yi gis ngeen bis bii ku ko tax barki Serigne Touba bu bàyyi seetaan jackpot bi mi ngi nii Zarko le retour de Zarko tardé jaratul sax ngay seetaan làmb lu nee na wax rek nga ci am nee nan la bàyyeeg wax ji miin nga ko yow man xam nga ni kenn mosuma xamee wax man xaw ma loolu sax parce que man sama wax yëpp xeex la man kaay wax rek mooy kaay ñu xeex mbay gi xam na lu koy xaar bu baax a baax tegal foofu sa loxo kaay kaay kii aw ma leen lu may wax moom li ko jëlee France ah du coobareem dégg nga. lu ko fa jëlee. li ko jëlee France du coobareem xam nga Espagne ga mu newoon sàcc la fa def ñu tëj ko génne ko ñu andi ko looloo ko bi andi mais ñëwut ci coobareem dégg nga man mbër muy farakante ci ay boîte. di su farakante ci ay boîte di dem fu ne man mënoo maa daan da ngay sonal sa bopp barke seexul xadim jarul nga yàq sa ñaar dërëm dama lay jàpp daan la man ay kilifa topp sama ginaaw di ma ñaanal ci kàttanu yàlla bu arbitre soufflé ma lay jàppee dama lay daan loolu. kay kay Mbassa may leen ñu tuuti. kay kay wuyu ma tontul ci lim la wax may leen ñu tuuti. man du ma ko tontu de. barki Serigne Bamba yow kii du xeex du bëre kii jour làmb ji day ñëw daanu ñibbi. bu ma de bu xeexee ma duma ko bu bëree ma jàpp jàngal ko bëre daan ko. man ci keppaaru Modou Lo laa yaroo déggoo ma de. ci keppaaru Modou Lo laa yoroo kii bu ñëwee dama koy jàngal bëre damay takk sama bët sax jàngal ko bëre. bari Serigne Ba ci keppaaru Tafatine laa yoroo sunu grand sunu xarit Tafatine. tapeta tax mbër yu mag yëpp di ko daw mbër moom ngay wax ñàkk koo ñimee tax mu koy daw doo dërëm. xam nga li may wax rek li nga kii am na wax yoo xamante ni du waxu làmb du ma sax dugg sama vie privée kooku man la concerné man après làmb lu ma neex lu ma sentir laay def loolu détail la di lijjanti li may wax rek mooy l' ensemble zone 7B rawatina j'adore le sponsor bi nga xamante ni ñu ngi ko sol muy Aziz Ndiaye ñu lay xamal ni li ngay def kambale yëpp ñun waa Grand Yoff ñu ngi koy yëg te ñun waa Grand Yoff Aziz Ndiaye ah j'adore ñu ngi lay xaar ci combat bi nga ñëw jàpp ci bu baax a baax te nga tëddee ci euh, ndey ji seex Euh, njaaxaanaay comme ni nga comme niñ ko xamee ci ni nga mës a def ci làmb boo mënti dugg ñu ngi la ciy xaar bu baax a baax ah Ziz. wa salaam jërëjëf bul dem xaaral promoteur bi wax wooteel. lu muy wax yow looy wax ci Aziz Ndiaye. Eh, Aziz Ndiaye da laa xam. ndimbal ngay wut. kooku sama papa la sama xarit la. kooku lépp li muy def woote woote mbay sama papa laay woo Abdou Aziz Ndiaye jaru sax ma koy woo kooku def na li war a def lépp billet yëpp da koy jënd dem ci àll bi wutal ma sëriñ ma jàpp ko duma ko ko promoteur bu mag bi nan nga def ba taxawal combat bi. wërsëgu suñu borom rek. Mhm. wërsëgu yàlla rek. yàlla moo dogal ñaari mbër yi. Mhm. nekk ñaari mbër yu neex a waxaaleel. neex a jubool. ba yàlla sabab bi date bi la 27 février incha allahu rabbi. mën nañ ci xaar ay surprise. bu neexee yàlla incha allahu rabbi. donc euh, kuy dem euh, guerre doo wane say arme hmm. mais jàppale ne ni grand combat bi neexee noonu lañ fas yéene taxawal petit combat yëpp a neex. seen objectif ci làmb lan la. waaw ah, def na ñëpp rek bëri jàppale jeunesse bi. Hmm. liggéey bu ñu mënee tëgg sambar ci at bi suñu bamba maase. Hmm. jeex na loolu la ñuy ñaan yàlla. jërëjëf Pape Sarr loo ciy sànni. non Jimbo wax na si wax dara waaw kon mbokk yi ngeen jëf. Mbaye Dia mbër Mbaye Dia nga xam ne